Euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jaajëfal kenn ku nekk fi nga nekk ñu fekk la fa jox la loxo nuyu la ziar la jaajëfal la bu baax a baax di leen laaj nag euh, alxames bi euh, incha allah di ñëw ak yéen par rapport à ce qui s'est passé muy nu mu tudd sax ba voilà donc tribunal fait. mu nekk mbir moo xam ni yell na quand même ñu waxtaan ci ñu waxtaan ci bon voilà donc euh, xam naa ne daal am na si ñoo xam ni euh, bu ñu muusee seen muus des na parce que je pense que parfois ils n'écoutent pas ils n'écoutent pas pour la bonne et simple raison qu'à l'issue d'un procès même si on sort avec un semblant de victoire, on puisse dire qu'on demande à l'avocat de l'État de ne pas déposer un pouvoir en cassation. Ça, c'est de mettre Bamba Sissé. Donc, lors de faire Wanani, ce qu'on appelle euh, euh, ce qu'on appelle euh, un, battu d'avance ça en psychologie c'est-à-dire que dans la psychologie des groupes donc c'est un battu d'avance c'est-à-dire quelqu'un qui part dans un combat tout en demandant à son adversaire de ne pas déposer un pouvoir en cassation, il sait, il sait très bien de quoi il s'agit. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a titré ce live, donc ce n'est qu'une défaite repoussée. Parce que, tout simplement, si on en est arrivé là, c'est parce que le, dilatoire a été l'instrument principal de Ousmane Sonko et de ses avocats. J'aime souvent rappeler à mes internautes le fait qu'aujourd'hui, euh, l'affaire pend jusqu'à présent en justice, c'est parce que tout simplement, Ousmane Sonko dans son affaire le concernant et qui a abouti euh, à sa radiation sur le liste électorale, euh, c'est un jugement par contumace. Donc, pourquoi jugement par contumace Parce que lui-même avait décidé de ne plus aller répondre à une convocation de sa justice aujourd'hui qui lui donne raison. Il est allé, ou bien il était allé, à, comment dirais-je, à Ziguinchor pour installer son, bunker et voilà, donc euh, constituer son bouclier humain. Donc, à l'issue maintenant, lorsqu'il a su que, bon voilà, maintenant, la chose, la messe est dite, il a voulu jouer avec la justice. Il a attendu euh, jusqu'au dernier jour pour les délais impartis pour aller déposer son recours. Aujourd'hui, donc, la chose suit son recours. maintenant, concernant aussi son affaire contre Mambéignan, donc, il a trois fois donc, essayé de tout faire pour ne pas aller déférer, comment dirais-je, à la convocation de la justice. Donc, à l'issue, il a été condamné. Donc, le procureur de la République avait interjeté appel. Donc, lui aussi, il avait, comment dire, déposé son recours et il avait attendu le dernier jour pour les délai imparti pour aller déposer son recours. Donc, aujourd'hui, ça, c'est du point de la justice, c'est du, côté de la justice. Parce que vous savez, l'État du Sénégal, en comprenant que Ousmane Sonko était en train de jouer avec le temps, l'a laissé. Donc, aujourd'hui, c'est une affaire de, de droit, c'est une affaire de justice. Et le charme dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, aucun droit n'est pas foué ni du côté de l'État, ni du côté de Ousmane Sonko. Et c'est ce qui fait le charme de la justice sénégalaise. Et bon, je suis dit, madame, moi, je li au tribunal donc man damay damay bëgg tribunal. Je suis may au di je ci benn mbir ma tegaat li nga postulat postulat tribunal. Je suis kan waral c'est-à-dire lan waral parce que tout simplement moi mi nga ne euh, mom moy avocat dafa taxaw génn fi nga xamni japp na ni mom am na ndam muy ñaan manam agent judiciaire état bi mu pour mu baña dem def recours xam nga sa avocat bu génnee donc dem di ñaan benen keneen ki ne ko bul dem defi recours c'est pas tout simplement ñaara am xam na ne bu demee day baxu wala dem bi waaj dem recours arrangé wu ko mais bu ñu yëgsee ba fii lan moo ko waral c'est pas tout simplement Ousmane Sonko moom mi nga xam ne tey moo waral mbaboor bi moo toogoon ne pare naa dem di wuy di justice bañ ko woowee lan moo waral coow li mooy mbirum contumance mbirum radiation bi indi radiation bi mooy contumance bi indi contumance mooy moo bañoon ne du dem wuy ji et c'est ça le problème donc bañoon na dem Ziguinchor dem toog foofu ba ñu àtte ko pare donc il est revenu donc voilà donc pour dire que voilà damay dem defi recours moom mi bañoon dem wuy ji justice bi moom moo dem def def def li nga xamante ni moom mooy moom mooy ay ay ay moom moo jëfandikoo parce que ñoom ñoo demoon Ziguinchor donc dem déposer mbir mi ñu atté ko avocat état bi dem euh, cour suprême cour suprême atté waat dellu si waat leen Dakar Dakar atté na jox leen ndam donc maître Bamba Cissé génn na day ñaan avocat état bi pour euh, day ñaan agent judiciaire de l'État pour mu bañ leen def donc lolu c'est juste en quelque sorte pour pour pour pour euh, nu mu tudd sax euh, euh sax voilà donc amener le sujet maintenant maintenant si nous devons poser la problématique

dafa am lo xamni dañ ko war bay bàyyi xel bi jiitu mooy bi jiitu moy euh buñu xolé calendrier électoral bi pour élection yu ñu ni du 11 au 26 jàppale li ma wax du 11 au 26 moy dépôt des parrainages au conseil constitutionnel manam bisu le 11 ba ñaar bisu fukki fan ak ben ba ñaar fukki fan ak juroom ben mom la yoon tek fu mu ton ni pour nit ñi dem déposer parrainage ci conseil constitutionnel du 11 au 26 du 27 au 28 donc pour définir pour voir nous nous parti politique yi nga déposé un parrainage nous pour vérifier ñu vérifier parrainage donc pour nous, pour nous voilà pour nous pour traiter le dossier des des parrainages du 27 décembre au 12 janvier c'est le contrôle de la légalité des parrainages ñu daal di commencé di contrôler nga xam ndax pare naa ci jaar na yoon wala jaar na loolu mi ngi am ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre bi ba fukki fan ak ñaar ci weeru janvier donc bu ñu tàmbalee fukki fan ak weer fukki fan ak ñaar ci weeru janvier dañuy jëm ci contrôle de la disponibilité des neuf pièces des dossiers dama bëgg ngeen déglu baax li may wax des neuf pièces des dossiers de candidature et distribution des cartes directeurs donc maintenant à partir du 12 janvier donc contrôle de la disponibilité des neuf pièces donc des dossiers de candidats disposition des candidats. Donc, à partir du 20 janvier maintenant, y y a le de janvier publication de la liste officielle donc des candidats Maintenant, ci commence à publier publier liste officielle du candidats 3 février nous démarrons la campagne électorale 25 février nous avons l'élection au premier tour de la présidentielle 24 mars nous avons le second tour pour faire donc 2 avril nous def investiture ki nga xamante moo président Macky Sall yàlla doon donc libre calendrier

kon da fay dem ci li ñuy woowe pourvoi en cassation pour lu ñu àtte mu dem ci tribunal bi ko féete kaw pour ñu àttewaat ko wala pour ñu xol ndax li atté àtte jaar na yoon wala déet instant yi may waxé ni ak yeen avocat état bi dafa wara xaar déjà ba paré day xaar li atté tay ñu bindal ko ñu bind ko ci keuyit jëmmal ko buñ ko jëmmalé fi ak ñaar donc da nga naan fii le 15 ak le 16 donc pour ñu jëmmal ko buñ ko jëmmalé maintenant ba noppi maintenant moom avocat, agent judiciaire de l'État bi am na fukki fan pour déposer li ñu recours fukki fan qu'il bu ñu xoolee bu ñu ko saytoo ma ngay dëpp ma ngay le daanaka ci le 24 février le 24 décembre ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre bi donc mu des ñaari fan pour nous clôturer dépôt parrainage ba donc bu agent judiciaire déposé recours ce qui veut dire que ni Ousmane Sonko nit mënu koo delloo mais tamit mënul jot parrainage nii pour député yi nii pour parrainage nii pour parrainage DC bi donc am na moom ba ñaar fukki fan ak ñeent ba ñaar fukki fan juróom bu ñëwee ba fan juróom nag maintenant ah bu boobaa tribunal bu ko jëlee nag maintenant moom tamit am na délai na boo xam ne day saytu dossier yi pare laaj pour yi nga xamante ni de défense yi nga xam ne ñoom ñoom ñoom la ñu war am fukki fan pour mën a pour mën a mbir bi su ma juum moom fukki fan la donc. Euh, nu mu tudd sax euh, ci loolu ngeen xool yéen ñi jubilé ndax parrainage am na fi fi wala mënu fi ki amul ci parrainage moom jëm ci Ousmane mënu fi am bu ñu dëgg parce day bu à partir du 27 décembre donc guñu mais à partir du 27 décembre da ngay def tirage au sort moom arrêté nañ ba pare. arrêté nañ parrainage ba pare mais da ngay def tirage au sort pour xool donc candidature yi seen seen ak donc du coup bu fekkee ni seen waa ji ngeen wax ni day bokk maintenant amul parrainage donc da ngeen di fàttaliku ne wax naa leen ni à partir du euh, nu sax du 12 janvier du 12 janvier incha allah donc ci lañ jëm ci li nga xam mooy contrôle de la disponibilité des neuf pièces des dossiers maanaam neuf pièces yi nga xam ni dossier la yoo xamante ni candidat da ko war a am mooy nationalité mooy casier judiciaire beeg mooy fiscal beeg mooy nangam yooyu yëpp dañ koy vérifier mi ngi nekk à partir du du 12 janvier ce qui veut dire que nous avons parrainage déjà nous même si insister sur ci candidature Ousmane Sonko bu manquer ñaari pièces pièce bi manque bi parrainage Une pièce qui pièces il faut ngeen nous ko faire ko que euh, la la femme, la c'est tout simplement la radiation La euh, manam dañ japp né Ousmane Sonko a été jugé par contumace et ça c'est le pénal du ça c'est le pénal ça c'est le c'est la c'est la cour euh, c'est la chambre criminelle chambre criminelle mon àtte chambre criminelle mon dos, Ousmane Sonko jugement par contumace pour deux ans yi nga xamanteni de dog ko mais aussi radiation bi définitive na moo euh, radiation liste électorale définitive na pourquoi parce que simplement moom maanaam ñoom ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy waaye yoon mu jàppaaye ko ministère de la justice ba ci procureur de la République ba ci ministère de la justice jàpp nañ ne mbirum contimence moom kenn waxatu ko parce que tey atte wuñu mbirum contumace atte mbirum nangam ak nangam lu ñu doon atte mooy mbirum génne ci liste bi wala génne wuñu ci liste nangam donc loolu ñëwagul loolu pénal la donc pour nga ne tey jii nii Ousmane Sonko war na mën a nekk candidat il faut que l'eau dañ madame contumace tu m'as ko il faut mourir parce que tu contumace et ça c'est de l'ordre du pénal donc maintenant il peut pas être candidat même bu ni dem nañ l'affaire civile ñu ne dañ ko On a ñu ne cest à que pour Ousmane Sonko aussi ça ne demande pas une réouverture des listes électorales ça demande juste une euh, voilà donc dañ koy jël directement pas donc ça c'est le dernier alinéa de l'article L47 du code électoral donc dañ koy jël doo directement parce que sinon euh, donc voilà donc ça. mais li ma wax man ñetti mbir ci Ousmane Sonko bi son parti est dissous quand le parti est dissous moom mi party. parti bi dem ci benn parti politique c'est impossible <laughs> loolu beneen la euh, les gladiateurs de Ousmane Sonko les gladiateurs juridiques de Ousmane Sonko devant les institutions de ce pays judiciaire donc Ousmane Sonko euh, euh, comment dirais-je son parti est dissous et chaque fois dans le code des obligations civiles et commerciales c'est-à-dire que le parti politique pas dissoudre association bi dissoudre nous il sinon y' a pas intérêt nous dissoudre dara parce que si nga leen dissoudre nous ne ki tax ma dissoudre ko mën dem les non loolu mënul nous que même Nous Sylla bi ma gis ça muy di je pense que s'il est réfléchi il il les soit à demi ou pas du tout parce que ni qu'on réfléchi on a c'est parce que nous def parti bi le parti n'existe plus et je suis le café. Ça, c'est le contenant. Mais le contenant, bi, nous avons le contenant bi tot dañ ko. Mais mën nga soutenir di sorti di sortie, non, mënul nek. Parce que tay bu fekké ni le contenant n'existe plus, le contenu maintenant bi tax ñuy wax contenant, dans ce cas mënul dem defi leneen. Kan mo waral ñu tas parti bi? Dañ né Pastef dafa dévoyer li nga xamanteni mom moy ay prérogatives. Mais Pastef en tant que chose, non comme de choses, voilà, non propre de choses ça dépend d'eux mais Pasteur, c'est un nom de choses maintenant vous on ne Pastef dissoudre nañ ko ñu ok mais la montagne de ñu c'est la question qu'il faut poser Nous n'est pas Ousmane Sonko nous Bassirou nous ak ñoom nous sommes Sagna nous El Malik et consorts dañ doon def li nga nous pour nous def en tant que parti politique mais parti politique bo xamanteni da ngay a ay insurrection da ngay fay ay nit ñu yak réew mi da ngay tal réew mi donc lolu ñu def mo waral ñu dissoudre parti bi par conséquent li tax des obligations obligations civiles et commerciales c'est pas passif, en tant que non commun des choses qu'on oblige à un comportement civil mais c'est ceux qui ont composé ce parti ah, c'est c'est ceux à qui on impose une un code de conduite

Euh, mais je revois mes notes voilà voilà donc je revois mes notes donc ah, je revois mes notes parce que wax man team voilà que bu article quatre bu bu de la loi quatre vingt 6 mai mille neuf cent quatre bi nga xam dañ ko jëm ci parti politique article.

Mon moi nous mu tudd sax euh, comment dirais-je l'imp euh, qui permet incontestablement boo combiner ñaari lecture c'est-à-dire boo combiner lecture loi 81 combiner le code des obligations civiles moo lay mën a may nga comprendre ne Ousmane Sonko ak mbooleem ku bokk Pastef daan fa dogal mënoo nekk candidat billahi te li ni wax ñu ci kanam conseil constitutionnel mi ngi fi maintenant vous n'avez la waxee l'origine ñu vous la bu ñu premier de la loi numéro de la loi 81 les partis politiques sont obligatoirement constitués sous forme d'associations sénégalaises. Dès que baax li ma wax article numéro 1 loi 81, de constitution Sénégal moo wax ni parti politique par force ni avons constituer association Jokkale Endam. constitution association nu comment dire qui ne Pogum voilà constituer kii association émité yi pare le wala Ziguinchor loolu foo constituer les associations au fait nous nous constituer les partis civils euh, les partis politiques ça c'est l'article 1er premier de la loi 81 17 Nous continuons. donc selon les dispos l'article premier, moi, je premier moi, wax de bu constitution et le conseil constitutionnel est là pour pour wax y donc moo tax dire que Ousmane ce n'est qu'une défaite reportée L'article 1er l'article premier de la loi 81 modifiée les partis politiques sont obligatoirement constitués sous forme d'association sénégalaise selon les dispositions euh, des articles 812 à 814 du code des obligations civiles et commerciales constitution Sénégal ci moo jël mu renvoyé ci loi 81 mu renvoyé li nga parti politique qui lañu ci li le code des obligations civiles et commerciales notamment dans ses articles 812 à 814 l'article 811 du code des obligations civiles et commerciales qui définit association comme ni association contrat la par lequel contrat est xamni deux ñaar wala nit yu bari ñoy andando boole seeni activité wala buñ ko soxla seeni alal ci benn but benn objectif bo xamni ñom ñoom xam nañ ko manam ñokoy koy bo boo nak du objectifu séddoo ay bénéfice lool moy article ñu ngi noonu Donc, nous euh, continuer qui nous donne code des obligations civiles et commerciales et je demanderai à Ndiaga d'être honnête avec lui-même et avec les Sénégalais parce qu'on ne peut pas travestir les dispositions de la constitution sénégalaise Maintenant, pour revenir sur ce l'article premier de la loi de 1981 monnaie les partis politiques sont obligatoirement Madame waxul dafa ne pas force sont obligatoirement constitués sous forme d'association sénégalaise. Selon les articles, selon les dispositions des articles 812 à 814 du Code des obligations civiles et commerciales. Ça, c'est clair. Maintenant, l'article 811, maintenant, du Code des obligations civiles et commerciales, c'est association. L'association, c'est l'association. association ñoo xam dañoo booloo di defandoo ay activités mais aussi boole seen alal wut benn objectif boo ñëwee ci parti politique lañ naan la conquête du pouvoir former des citoyens ci li nga xamante mooy taxawal seen réew revendiquer seen réew ay droit revendiquer seen réew ay nangam def nangam def nangam boo ñëwee ci association bi mu ne la man sama association c'est pour maanaam but bi ma am àndandoo samay nit moom mooy pour defar sama gox taxawal sama gox daal conscientiser sama gox nangam sangam donc loolu mooy éducation populaire éducation populaire De, citoyens de, jël leen ñoom jàngal leen màng leen jëmale leen ci benn objectif boo xam ni day amal réew mi njëriñ li tax maintenant ñu dissoudre parti bi mooy deux à plusieurs personnes dañoo dajale ay nit am ben but boo xamante objectif bi tout éducation populaire mais Madame dañ doon yàq xale yi di leen jàngal taal ak fitna yu donc c'est ça c'est ça le problème moo tax ñu dissoudre parti bi parce que dafa répondre ci li nga xamante ni moom l'article 811 du code des obligations civiles et commerciales donc maintenant le la parti politique ak association bu me a un objectif mukk nekk di ces deux. Mon association quartier mënul séddoo alal bu demoon tey ji association bi amatul ay bien wu mag lépp état moo ci teg ça c'est ça ça clair donc maintenant le code des obligations civiles et commerciales poursuit mais il continue. Il précise de l'air que l'autorité administrative compétente ne peut refuser l'enregistrement d'une association que pour des motifs de légalité, et notamment si l'association constitue en fait la reconduction d'une association dissoute par l'autorité judiciaire ou par le pouvoir exécutif dans les conditions prévues par l'article 816. Article 816. Moi là, préfet l'autorité administrative Mme madame boo jëlee tey euh, lu l'autorité administrative mën nga jël comme par exemple ñi nga xamante ni ñoom ñooy saytu li nga xamante ni moom mooy ñëw déposé sous préfet bi ci la bokk préfet bi ci la bokk gouverneur ci la bokk ba mu jël yoon bi ba dem ñu ne la amul sañ-sañu tere kenn mu wut association wala mu tere kenn mu wut parti politique lu dul lu dul hmm, lu mbir moo xam da koo teg ci yoon yoon wax ko ne lii ko def mënatoo nekk parti politique wala ko def mënatoo nekk association muy kon di leeral mu ne la bu fekkee ni parti politique boobu wala association boobu dafa jël ay nit yoo xam ni dañ leen dañoo nekkoon ci beneen association wala beneen parti politique ñu dissoudre parti boobu ñu ñëw ci beneen parti dans ce cas autorité administrative amul sañ-sañu jox leen autorisation pour ñu am parti politique wala ñu am association ça c'est l'article bi nga xamante ni moom 816 du code des obligations civiles et commerciales maanaam li ma bëgg wax mooy tey même si l'article L 47 su ma juumul xaw ma euh, l'article L 57 dafa ne bu fekkee ni coalition wala parti politique ñoom ñoo ngemb nit tey Ousmane Sonko yoon mayatu ko yoon mayatu ko Bassirou Diomaye yoon mayatu ko Birame Souleye yoon mayatu leen nous devons fofu dem constituer ou être ci partie parti politique c'est ce c'est pas possible au vu du code des obligations civiles et commerciales notamment en son article 816 wax ni l'autorité administrative compétente ne peut refuser l'enregistrement d'une association que pour des motifs de légalité et notamment si l'association constitue en fait la reconduction d'une association dissoute par l'autorité judiciaire ou par le pouvoir exécutif dans les conditions prévues par l'article 816 Quand on dissout le parti c'est un décret présidentiel Nyaram, am soit justice mën na ko dissoudre wala président de la à partir d'un rapport ça a été fait par l'autorité administrative l'autorité de tutelle mais le ministère de l'intérieur pour nous comprendre li wax ni da l'article premier er les partis politiques sont obligatoirement constitués sous forme d'association sénégalaise ngay jël nga nga 816 l'autorité administrative compétente ne peut refuser l'enregistrement d'une association que pour des motifs de légalité et notamment si l'association constitue en fait la reconduction d'une association dissoute par l'autorité administrative ou par le pouvoir exécutif dans les conditions prévues par l'article 816 Mon rapport enquête ba rapport ba détaillé bi nga xamante def nañ ko ci Pastef ak li ci def yépp ñu jël ko jébbal ko président de la République président de la République dissoudre parti bi signé décret donc mu ne la par conséquent pare naa ci article bi lii bu ñu ko déggee nag par conséquent un parti politique ou une association ou une coalition un parti politique ou une coalition de partis étant d'ailleurs des associations enfreindrait l'article 812

benn parti politique wala benn coalition de parti politique mënul parce que tout simplement ay association selon l'article premier du de la de loi 1981 donc mënul ñëw di présenter candidat boo xam ne dafa jóge ci parti sinon ce sera enfreint de l'article 812 du code des obligations civiles et commerciales ça c'est clair l'expert électoral de donc mieux bu nous bàyyee lee sax ñu xool beneen l'article 812 du code des obligations civiles et commerciales pose dans son dernier alinéa une interdiction encore plus explicite. L'article 812 du code des obligations civiles et commerciales de alinéa bu poser ne peuvent participer pendant un délai de 5 ans à compter de la dissolution à quelque titre que ce soit à la direction d'une association d'éducation populaire et sportive ou d'une association à caractère culturel selon le cas des individus ayant participé à quelque titre que ce soit à la gestion d'organisations dissoutes par l'application de la précédent précédente. savez ce dof dof une lecture combinée de la loi 81 qui dit que les partis politique qui ni formé association et qui selon les dispositions des articles 814 à 816 du code des obligations civiles et commerciales article 821 ne la ne peuvent participer pendant une période ou bien pendant un délai de 5 ans à compter de la dissolution bis le président Macky Sall décret dissoudre dissolution irrégularité la tambali ñu la à quelque titre que ce soit ak rôle bo fu mën yor mo xam jibi ngay njaay jibi ngay njaay membre pasteur bu doon dem dugg marché mo xam ki doon dem takibas mo xam modat mo xam mokat mo xam mochat moy mouvement des tiaga patriotique mo bu mu ci mën doon mooy wa wa wa mochat rôle bo ci mën jouer a quelque titre que ce soit à la direction d'une association d'éducation populaire et sportive ou d'une association à caractère culturel selon le cas parti politique c'est c'est association d'éducation populaire la bas ku bëgg na dem mu disposition donc à quelque titre que ce soit à la gestion d'organisation dissoute par application de l'année loi donc comme ci le donnes, doon mënoo dem ci un parti politique te mun boo mënul dem ci parti politique moo nekk candidat indépendant parce que nga nekk candidat indépendant il faut nga arrêter say activité politique pendant une durée deux ans donc daf dof lu moo fi nekk rek conseil constitutionnel foofu leen di xaar donc la en outre en outre euh, non or il est de notoriété publique que les partis politiques sont aussi des associations à à à but d'éducation populaire c'est-à-dire partis politiques sont des association à but d'éducation voilà donc ci loolu toute personne ayant été impliquée dans la gestion d'une organisation dissoute ne peut en vertu de l'article 821 intégrer un parti politique ou une coalition de partis au cours de la période de 5 ans suivant la dissolution loolu mënul nekk kon dama gàttal foofu mais euh, incha allahu taala dañ d'un li nekk ci kanam bi nga moy ki li tax nak may wax li moy bu yeggee ba ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel ci article 125 vingt cinq ma ci jaajëfal El Amath cham di ci jaajëfal aussi ñepp ñi nga xamante dañuy waxtaan ak ñoom dana né en tout état de cause ak lu mëna xew pour s'assurer de la validité des candidatures et déposées et du consentement des candidats le conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile toute vérification toute vérification qu'il juge utile moo may mu dem saytu ji sa casier ba moo may mu dem saytu ji sa fiscalité ba moo koy may mu dem saytu ci nangam sangam yow dañu dissoudre sa parti ki ban mig mag wala ban nangam sang wala ban nangam sangam donc lolu conseil constitutionnel day melni juge d'instruction ay prérogatives day large il va faire les maanaam une il va faire une instruction de tous les candidats yi nga xam déposé nañu leen ça c'est le conseil constitutionnel et approuver la candidature de Ousmane Sonko, approuver la candidature de Basile Diomaye ou d'un quelconque autre macaque issu des rangs de la toundra Passe-Festal, c'est en quelque sorte s'inscrire en porte-à-faux avec les dispositions du, Code des obligations civiles et commerciales. Et le Conseil constitutionnel est là pour garantir le respect strict euh, les lois et règlements de ce pays. bi bi bi deuxième bi nga xamné dafa dafa dafa dafa dafa dafa tegu ci ndoddam li nga wax naa leen dissolution par thème wax naa leen aussi contumace bi contumace bi euh du tribunal bi doon atta tay moo dindi kon waxon na ne fi mim hadam delu miim del maanaam hadam delu la maanaam xaadam dellu maanaam da ngay dem rek delu ci wat hadam delu kon euh li war a leer ci bop Sénégalais moy que euh, maître Bamba Cissé ba nous génnee ne damay ñaan wala des day euh, euh, judiciaire de l'État pour nous déposer li nga xamante mon moi recours lolo on a ko quelqu'un qui parle au combat sans aucun moral c'est un battu d'avance un vaincu d'avance et pour doon may il faudra demander à maître Bamba Cissé pourquoi l'avocat de l'État ne devrait-il pas, ah. bien entendu, euh, voilà, donc, euh, déposer un recours au niveau de la Cour de cassation pour faire son pouvoir Parce que tout simplement, les délais impartis seront largement dépassés. parce que c'est du 11 au 26 la délai yi nga xamante ni moom délai yi ñu war li nga xamante moom mooy parrainage ñaar ñaar bi nga ne gàll kawam day il y a un dossier, bon, j'en ferai un live spécial. Ça concerne un certain Oumar Sey, bi nga xamante ni dafa nekk fële ci Ngor yor li nga xamante ni moom mooy mbirum affaire wala affaire surf yooyu ñu def ci ndox mi un dossier qui boo xam dafa nekk moom moo jàpp contentieux la par rapport à un général ñu général Mbengue j'ai vu que sur le terrain je crois bien pour euh, bon voilà donc amener des informations information familles xam ni ñama teg boor boobu ñëw euh, wa gars mais pour ce général là qui est de minko am depuis 2007 depuis 2007 du ma dire parce que maa ngi këyit depuis le début, nag wax naa mais il fallait que ma am temps recouper toutes les informations et j'ai eu l'opportunité quand même d'avoir toutes les informations que mi ngi depuis 2007 de général Mbengue ne moom du tabax fekk amul autorisation maanaam fekk amul autorisation de construire du tabax mu déposer ay kayitam autant. temps euh, mairie ba mbirum mairie ba mairie ba ñu bloqué ko en 2011 ci la am attestation bi nga xam mooy koy war kayit bi moom léegi définitif jël ko parce que en 2007 CCO CCOD dafa ñëw jox ko jëbbal kayit bi 2007 j'ai les papiers 2011 mu ñëw la même chose mu am ay kayitam jusqu'en 2022 maintenant bëgg et j'ai les tous les plans situation depuis avant depuis place euh, c'est le numéro c'est le numéro 60 parking parking la euh, avancer avancer avancer avancer à un moment donné le comité olympique mais ils ont compris que l'affaire là n'a rien à voir mais li may invité la population aussi moo ñu dugal leen ci lo xamante ça n'a rien à voir benn y en a qui ont dit qu'il a été arrêté il n'a jamais été arrêté il a été convoqué par la DSCOS maintenant s'il refuse s'il refuse mu dindi lam fa def dans ce cas il sera arrêté mais je pense bien que ni euh, les gens ont privilégié li nga xam moy la voix ñu ak wa Descos ak nga xam ñom ñoy les belligérants les belligérants ñu privilégié yi nga xam moy dem toog ñu discuter normal et on l'a convoqué s'il refuse maintenant d'effectuer à la convocation, dans ce cas-là, la descosse va l'arrêter tout simplement. Parce que non, là, c'est le même cas agrippé xewoon ci jamono yi nu mu tudd sax ci kaawu nu mu tudd sax Maimouna Bousso c'est le même cas maintenant nag loolu euh, dama ci ñëw en live spécial dama bëggoon bàyyi journée tey passé ba ma xam à l'issue euh, li fa xew tey ci visite terrain bi pour ñu xool de visu li nga xam moom moo fa am pour les parties wax parce que yoonu Sénégal mom non la DSCOS ñu ngi leen féliciter bu baaxa a baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ñu ngi ko ñu koy liggéey lu waaye wax di wax di xam nga ne gendarmerie DSCOS ñi ngi def liggéey bu am solo bu ama am solo ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mais toujours ku ñu jox maanaam kayit yi au fait kayit kayitu kër nit mënul wax a wax a wax a wax a wax a wax ba ne yaa ko moom fekk ne moomoo parfois aussi les citoyens mën nañ tayal mais tey jii c'est pas parce que on est général c'est pas parce que on est colonel mais on est un général du Sénégal on est un colonel du Sénégal et si au nom de quoi un général ou bien un colonel ou bien un lieutenant n'a pas le droit d'avoir une maison au Sénégal d'avoir un terrain au Sénégal mais ñun ban réew lañ nekk man dama jàpp ne Sénégal xamuñu lan mooy raawu général billahi maanaam xamuñu lan mooy raawu général général du caaxaan de étoile wallahi étoile du caaxaan barat sax du caaxaan waxuma ay rouler rampé déedéet ci taxawaay laa wax un général dama ci réew ñu nga xool un capitaine wala un lieutenant na un officier subalterne je veux dire cër bi ñu koy jox te dafa am cër boobu maintenant un général lañ bëgg jël mais on xamuñ sax la mooy rang général ko sax nii le rang d'un colonel Sénégal ñoom li ñu xam mooy il devoir en tenir bon wala amoo loolu amoo benn droit pourquoi parce que état ngay liggéey tey jii un général de l'armée dañ bëgg wax ni Sénégal moom un général amul droit am dara un ministre amul droit am dara un nu tudd sax un directeur général amul droit am dara boo jëndee kër nangam sangam et en même temps on voit un Pape Alé Niang qui a deux maisons un véhicule flambant neuf amoon ci kër yi fii nu mu sax su ma juumoon fii boobu ça laisse à que amaguma données yi mais fii ci ci ci ci filao yi moom Pape Alé Niang qui n'a pour ce nga jël teg ko teg un général. et on dit que nangam sangam bon les gens ils font des lives nangam gis nga réew mi xam buñ ci tu vois sur le plateau de Sénégal on fait asseoir ben xalé bu jigen mu tok fa bon voilà donc di nek fofu nan ay ma fournir alma ay hélicoptère ay ay armement lourd ay nangam sangam mais dit, dañ ko wara jëli buñ wax ci plateau Sénégal bu démé bitim rew wax lu upp ki ki kay li tax dara xawma nan ki sisé la xawma femme bi taxawon ci plateau sénégal li mo tax yow mëno am marché parce que nak marché ci armée bu ñoko jox dañay xam yow ku la yéex xam xam ne téewoo sa lamine ku téewul lamine mënoo fournir armée ay ay ay ay ay mir donc voilà dama am sama concurrent sama nangam sangam sa concurrent bu fekké ni mo lu upp maqaama fu upp lo xam-xam ci wal limi def non nangam sangam mais mais mais kenn doom ba bi ngeen jël diko ngawti ngawti mais kenn il n'est pas sénégalais est ce que kenn ndom n'est pas sénégalais kenn ndom amul droit bu fekké mën limi def mu dem defiko mais Sénégal vraiment Sénégal dafa neex donc maintenant man ci yooyu gars yi di nekk man nekkuma ci donc ce qui s'est passé là-bas nga xamante ni moom mooy dossier boobu euh, incha allahu taala dama ci <coughs> dama ci ñëw en live spécial parce que j'ai j'ai tous les documents pour mën cee wax mais ma doon xaar tey ñu ñu def seen visite ak nangam sangam parce que fu waxtaan mën a jaar balaa ma ciy wax yenn wax yi damay xaar ba ñu waxtaan ba noppi donc parce que loolu mooy li nga xamante waxuma nag ñoom parti dañuy waxtaan déedéet dama ne. selon samay information am visite bu waroon am fofu damay xaar visite bu pare mais kii demo war am ak plan yamo ma am presque une dizaine de plans depuis tambali bi waaj li def ba yek ba yéeg place su lepp lépp yor naa ko et ko te wax dama koy wax tek parce que fi wax day ay firnde day leer donc loolu dal moy li nga xamni beugon nako wax le général mbeng est un général intègre du Sénégal est un officier intègre du Sénégal c'est quelqu'un qui a tout donné au Sénégal si maintenant il n'a pas la capacité ou bien il n'a pas le droit d'avoir un terrain au Sénégal, qu'on nous le dise. Qu'est-ce qu'un inspecteur des impôts et domaines a de mieux ou de meilleur qu'un général de l'armée Non, non, non. Parce que inspecteur des impôts et domaines, vous faites que mom pour me recouvrir, il fait que que am jàmm pour réew am jàmm il fait suñu généraux taxaw taxawaay ba ca pour jàmm mën am Sénégal parce que là il n'y a pas de paix il n'y a pas d'économie aujourd'hui si on a une économie c'est parce qu'on a la paix si on a la paix parce qu'on a de beaux officiers il y a ne ay généraux officiers généraux officiers supérieurs officiers subalternes respectons ces gens-là il faut que nous apprenions à respecter l'armée nationale la police la gendarmerie et consorts parce que di xew ci dëkk bi dafa commencé vous dafa à briller. et aujourd'hui l'état du Sénégal moi, ci vois a intransigeant Quand tu vois wax ci wax ci armée vois, tu vois, tu ñu fekk la fa jël yóbbu la si Il ne faut pas que l'on ouvre des portes yoo xamante après un am problème politique. ko et loolu mooy li nga xam donc jubilé jubilé autant de fois que vous voulez mais seen jubilé ba moom dana mel ni euh, waaye taxawoon naan aadun mumtiruna donc waa ji keroog ba yàlla di alag waa mu dëkk ba sacrifice parce que dëkk bi daa ñàkkoon taw demoon di ñaan mën naa ko jàppee Bamba Cissé rek wala Clédor eh, Ciré Ly Bamba Cissé mom dama koy kallu quoi mom mom wax deug yalla am mom xarma yalla mais Clédor sama pa la aussi jappalé na sama père la et quelqu'un ko xamni bon voilà son comportement ne me plaît pas mais bon voilà donc aw mom xarma yalla aussi damay wax ni rek dans le cas voilà donc waat bobu demone dafi ñaan euh ba mu joggé ci kaaba ga je pense kaaba ga la won parce que ñom fa lañ doon défé ay sacrifice gaay yoniko ko pour mu dem defi ñaan parce que euh, na na amul fekk na yàlla moom nawet bañ doon ñaan yàlla xiin gi mu xiin di ñëw maanaam xiinu alkande la ñu ñoom ñu jàppee ko ñi nga xamante ni moom mooy xéewalu yàlla xiinu alkande maanaam xiin boo xamante ni da lay ñëw alak waa ji seen ndeysaan asamaan suñu kukk mu ne xaasa aadul mumtiruna mooy li nga xamante ni moom mooy niir bi nga xamante ni moo ñu war a tawal fekk ne moom musibaam la donc loolu moo dal ñoom Bamba Cissé ñoom Clédor la waaj a waxoon rek xaasa aadul mumtiruna donc mumtir maanaam matar boobu nag moom

donc incha donc voilà donc li jar teunk moy il faut pas qu'on tire sur la justice parce que état moom dafa yew Ousmane Sonko dafa bëgg wax ak yelef lam doon yaakaar manam muy droit au Sénégal ci droit bobu lay jaar ba alak boppam waxoon naa ne bu yuxribuuna buyuutahum bi aydiihim donc voilà donc tay ñom ñoo sank sen bop parce que mom mo do def dilatoire bi dilatoire bi tey day dépassé day jëlee <laughs> ok incha donc sant nañ baax baax di leen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala